Euh, mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek euh, dafa am ñoo xam ne dañ fekkee démb fekkee tey fekkee barki démb fekkee li nga xam ne nag mooy tey euh, ñu toog fee ki nga xam ne nag mooy chief bi nga xam ne moom la ñu ooyee Jim Fatma Diop ñu bàyyi ko rek mu wax ñu moom mooy kan ak fan la nekkoon chief ak moom naka la mu def. alhamdulilah man maay Alaaji Jim Fatma Diop retired chief Jokaadu mm-hmm. nekk naa fa at yu nekk naa fa tati four years maa ngi doon liggéey ak président Jawara ci nguuram am naa moom fukki at maa ngi liggéey ak moom nekk fekk may chef balaa loolu di xew nekkoon naa ci politique am moom Alaaji Sa Daawuda nekkoon naa ci politique bokk ci ndaw yi nga xam ne ñoo doon doxal politique bi ci gox ba ma nekkoon ci xale yi maa doon seen njiit ci waxtu woowule doon liggéey ak moom ñu xam ko bu baax muy borom teraanga di borom xol bu rafet di borom nit koo xam ne du mere kenn du gëdd kenn kenn du ko gis nga ragal loolu jikkoom la woon ci nit ñi bëgg ndaw yi bëgg jigéen ñi fonk mag ñi loolu moo doon jikkooy sa Daawda ñun de bi ñoo nekk ak moom dafa meloon ni ñun ay moromam lañ man bu ma si naan rek dama boo joob kaay boo joob kaay loolu rek la ma wax waaw ba ñëpp ne ñi ñi dëkk ci réew ne yow kii moom yow la jàpp xarit loolu di dem di dem di dem ba yàlla dogal eh, jokaadu ñàkk chef maa ngi toog di ci sama business leetar yi ñëw nit ñi ñëw kaay kaay kaay kaay yow rek lañ óolu mm-hmm. pour nga nekk chef ma bàyyi suma liggéey boobu dem fekk leen boobu de waaye waxtu boobu nag CVA dañ koo wote waxtu boobu CVA dañ koo wote ñu ne ma taxawal dinañ la woteel nga moom réew mi ma ne leen man suma liggéey waaye mënatuma te nit ñi nit ñi suñu la bëggee rek foog luñ bëgg nga def ko ba ma tàggoo expliquer Mamadou Babacar Ndiaye mm-hmm. ba ma ko tàggoo booba mooy suma boos man moom laa doon liggéeyat mm-hmm. mu ne ma ah mm-hmm. óor na la ndax óor na la ndax buñ la buñ la yóbboo foofu di nga gañe ma ne leen waaw nit ñi ko wax te nit ñi ñoo amee baat bi su ma amee kees daal dinaa gañe mu ne ma kees kay waxuñ ko yow loo bëgg ci ngóor gi tey ci politique bi danañ ko am ñëpp xam nañ la ba wis ñëwee si day sax mu ma sa ah. mana mu ne ndax da nga gañe ma ko ma na de mune ko dinaa gañe ma di nga am kees booba <coughs> dafa nekkoon waxtu woo xam ne amoon naa dara ji ci nit ñi fekk xamoon nañ ma itam du sax am am amoon dara waaye nit ñi fii ba Sénégal Gambie dama nekkoon ci kaw yoon woo xam ne jula yi dañoo jaar ci man transport yi di jaar ci man ba ñëpp xam ma ma nekk seen njaatige bi wote boobu jotee ñu jox ma kees bés bi nga xam ne man ci laa doon def suma raawoon ci gam ci ci jokkaadu dama àndoon ak ñanaan fukki oto yoo xam ne man xaw ma fu ñu jógee yu Senegal yu gambi ki ne suma xarit la ki ne suma mbokk la dama dem ba man ñanaan fukki auto may doxal ñoom ñetti fan ci jokaadu ya, ba yàlla dogal lam dogal loolu 1985 la <laughs> luñu ñu mën a wax si Sir ba jawar sa Sir Dawda ba jawar liñ la mën liñ mën a wax ci moom bari na waaye liñ mën a wax ci moom liñ gën a mën a wax ci moom mooy nitu dëgg la <laughs> nitu ku am yermane la ku bëgg doom aadama la nit la go xamne so ande àndee moom su fekke yow da nga xir mom dana la wacce ba nga wacce su fekke da nga am xol bo xamne dafa gaaw dana la bos ba nga xamne fa nga wacce rek mom nitu nit ñi la So ko gisee rek do ko ragal ñu ñëwoon ak mer sax dana la bos lim njëkk wax ba mu wootee ba gañe ñun xale yi ndaw yi bañ jotee bañ toogee lim ñu njëkk a wax maa jiite woon daje ba li ma kuuke kuutee laa lii la wax njëkk a wax booy si yéen a ngi toog ma ne waaw ñu ne man ne man kuuke kuutee laa ma ne luy lool ñu ne ma mooy koo xam ne defu dara kenn du la def dara mu ne suma nguur noonu la mu dellu ca teg ne ali nga teye sudoo ali teye sudoo e ko ke ma luy doon mu ne ngeen takk seen dëgg ngeen ànd liggéey ak moom mane ne waaw ñaari wax ñaari ñii ku ko wax nit soo amee xel da nga ko xam ne kooku njiit lu baax la liggéey leen ku defu dara dara dula jot mo ñëk ESI démocratique mo ko ñëk dugal human right jox doomu ci ram non la président doon dundé nit ñi ba tax na ben xéet bu mo xétalé amu sosé la amu wolof la amu pour la su accès rek bokk nga président Jawara tey la def lo xamne ne naxadina waa Gambie yi waye bana fi loo xam itam inshallah dafa continuer du jeex mok wa ngor gi ñu nek tay dem ba melni ni yu yi parce que niroo na ak nim mu doon doxalin ni bëgg ci fi nek Adama Baro bëgg na nit ñi bu baax teena am na ittee doomu aadama yi te noonu la Jawara doon def ba moom Gambie yëpp man ci laa bokkoon. lu bari tamit wax nañ ne Jawara nekkoon na njiit boo xam ne. Hmm. Ah, jëlutoon xaalis ci dëkk bi di ko pisi pisi. Ah, déedéet déedéet loolu mën naa la cee wàllu bari ñun suñ daan dem campagne ci jamono boobu suñ suñ oto yi ñun ñoo cee def essence suñ fa waree endu. wala ñu war faa fanaan lañoo ñoo lekk suñ njiit yi ñoo koo def booba am na ay njiit yoo xam ne ñu njiiti politique yi suñ njiit yi ñoo koo def jawara alali réew mi daf ko daf ci tegoon bakkanam bi moo jël Gambia dañ doon wax ne kii du ko mën a yóbbu parce que tubaab yi bàyyiwuñ fi dara dootul mën a fay dootul mën du mën a fay liggéeykat yi waaye bañ demee ba ñaari at ñetti at bala ñoo defaat beneen wote kenn waxatul dañoo fay ba desal président Jawara lim liggéeyal Gambien waa Gambien yi mënuñ ko fay waaw waa Gambien te du Gambien yi rek nitu jàmmi la ba ba adduna bi yëpp fu problème am <clears throat> danañ ko jël si fii yóbbu ko fa pour mu régler loolu loolu bokkoon na ci jikkoom fu problème am. tukki bi mujjee def ci wàllu politique Nigeria la bi Nigeria jafee xat ñuy def politique jëlee nañ ko fii yóbbu ko foofu le ba politique bari réussir baax dara xewu fa te loolu moom moo ko def yow ara dal daal li ñoo mën def rek mooy li ñoo mën a wax rek mooy ñàkk na njiit loo xam ne dëgg-dëgg nim sewuñ ko itam nag ndax dund naa juróom ñanaan fukki at ak juróom yang nanti gamia buram 30 years wala 32 two years mosula tëj nit kaso mosu koo def mosu de wax wala baru lu wanit wax nit ne demal dàq naa la bariwul soo demee ba sa liggéey mën a suda dem moom rek mën na la resaayinal bindal leetar nga sa place ci def ba tax na daal royuwaay la bépp président boo xam ne roy nga président Jawara sa nguur dana neex da nga d'accord ak nit ñi te bu la yàlla mayee fan da nga fa yàgg te dara du xew. président daal li ñoo tàggu moom mooy. doomu aadama yi ñépp xam nañ ne ci lii la ñoo mujjee waaye demam ku ko tiim sa danga sa yaram dina daw soo xamee démb sàkk man man mii di alaaji Jim Fatma Diop su ma tiimee ni président Jawara su ma xol dina jooy su may bët dana jooy di dinaa fàttaliku démb te teraanga bu rëy rëy boo ko fàttale ko rek sa xel dana dal sàkk ngay tàggatoo borom boo xam ne xamula kañ ngeen a fekk xam naa ne dinañ ko fekki waaye ñu ko